police daal di nay tas rassemblement bi nga xam ne waa F24 ñoom ñoo ko organisé woon manifestant yi ñu ngi déparé booru mairie bu Parcelles Assainies yi ngir wutali terrain ak APES. Guy Marius Sagna ak ñamu àndal li ñu bëgg moo ñu amal élection présidentielle laata 2 avril dat bi nga xam ne ci la mandat président de la république di jeex. waaye boobu le rassemblement du mujjee antu ci yoon bi la leen police dab daal di leen dóor ay grenades lacrymogènes ci loolu la takk der yi di fees ci biir terrain ak APS ngir tere bépp rassemblement